samba ndey barke teg joga maay sa xor gañoo sem ci ca mbaraa bañ koo delloo ñeet mu delloo tubaab bi nguur a baaba kër jaara jala ma baa jaama ñaani bañ naa jala jala Bismillahirrahmanirrahim gannaaw bu ñu sante yàlla suñu borom sayyidina Muhammad sallallahu Alaihi Wasallam sallam ñu ngi dellu di sant Cheikhul Khadim Khadim Rasul yàlla bi ñu baaxee ñu nekk ci dëkkam bu sell bi yàlla def ci fan ay fan a ngi nii ñu nekk ci campagne électorale pour tabbu ndaw dëkk bi war a askan ci penc réew mi ñu liggéey liggéey bu rafet di eh, eh, Sidi Mokhtar

ak jëmm ji am ci àdduna bi loolu njaboot sëñ Tuubaa bi ak taalibe ñoo ci taxaw bu baax waaye lii nga xam ne mooy dëkk bii dañu war a ko taxaw tamit ci wàllu koom-koom ba réew mi ba dëkk bi a taxaw looloo nga xam ne moom la ñu président Macky Sall tànn ñu Cheikh Abdou Bali doomu sëñ bi Cheikh Gaynde Fatma ñun doole liggéey liggéey bu rafet def Touba juróom-ñetti pàcc juróom-ñetti zone tax ñëpp ku nekk liggéey ci seen bopp defe naa ne responsable bi nekk yëpp wax ak population bi déglu population bi xam seeni i jàmbat xam nga xam ne mooy yitte ak soxla bi defe naa loolu mooy li nga xam ne mooy waxtaanee ba di soobee baax a xeexal a liggéeyal di ko ne dëkk bi ak Medina ak Fès ca ndax loolu kër yooyu leen yàlla jox di ko raw la jox bi mu ngi wax population yi ne bu ñu jaawatlee élection yi ñu jëm di élection Ablaye Wade ak Macky Sall élection ndaw a tànn tawal nga xam mooy assemblée nationale ba nga xam ne fa la ñuy séddale kër yi xam ne fa la ñuy séddale budget Sénégal ñu yëpp ba ñu xarañ ñoo xam ne yàlla may na leen xam-xam yàlla may na leen taxawaay jaar-jaar ak yéene il ko demee taxawal ko Touba taxawal ko bépp population bu def ci département Mbacké ñoo ngi sant yàlla bu baax di remercier population ndax campagne bi fi am li ñu def ku nekk ñu dem fa kilifa yu baax yépp taxaw liste bi nga xam ne moom la président Macky Sall de fii ñu tëj doomu sëñ Cheikh Gaïndé Fatma responsable politique yépp ànd ak moom xam benn ñu ngi ñaan ñu ko ko ko ñu ko te yàlla may ñu ndam ndam loo xam ne day jig Touba jig njaboot sëriñ Touba bi jig murid yëpp jullit yëpp dañu sant ñëpp di gërëm ñëpp sant militants yi wax population yi bu ñu daawoon gis baax xam ne ki yàlla fal te jox ko teraanga yi teg ko ci bopp réew mi mooy président Macky Sall te am na yéene lool ci Touba taalibe la bu am yéene ci Touba la malgré li fi doon am ay jafe-jafe yëpp dafay def loo xam ne président bi yaa def kenn def duñu wax dëgg yàlla kon nañ ko jàppale ndax mu yeggal ci yeneen jigéen ñi ci ndaw yi ci diine bi yeggani ko ba nga xam ne dañ ci def soo xam ne soo xam ne kon ñu ñuy sant di gërëm gërëm ñëpp di ñaan yàlla suñu borom mën a prendre ñu am ndam euh, te ndam yi dellu di ko waxaat dig ñu li may wax rek mooy sama morom bii lay adressé parole bu la 30 jotee ku munta fajaru bu samedi nga fanaanam ñu teel a jóg ndax fi xam ne ku fi fal ku nekk jigéen moo la fal ñu teel a dem vote ji tranquillement mu ànd ak dal ak yar ak teggit daf dëkk bu sell bi bi ñu nekk nekk dara sa kër toogaat ba ci ngoon résultat yi génn ñu fekk suñu victoire si kaw yar ak teggit Wassalam. jërëjëf